asalaamaaleykum wa rahmatulah famille forum wàllu Dakar maa ngi leen di nuyu ci suba gi bari bari maa ngi lay nuyu maa ngi seet noo def naka waa Moscou du ngeen def ak climat bi foofu mbaa lépp jàmm mais maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu di la féliciter di féliciter Poutine ci ci ci ngañaayam bi mu gañe élection yi fii moom. fii moom fi ñu toll nii gars yi finlandais yi mais finlandais yi non finlandais yi da ngay foog mais ñi ni ñu bañ a Poutine maa ngi koy doog a comprendre quoi xam nga kan la ñu doon ŋàññaa mooy président bu Italie quoi Matteo la xaw ma Matteo daal moom moo félicité Poutine affaire bi xoolal Union européenne bi yëpp jël ko nag di ko ŋàpp quoi nan lu tax waa ji félicité Poutine quoi parce que pour moom pour ñoom dañuy jàpp ne képp ku félicité Poutine rek yow. waroo nekk président ci kaw suuf quoi maanaam ñi nga maanaam les présidents intègres war ñu féliciter Poutine quoi mais en fait un peuple ne fait jamais d'erreur population bi ñoo ko fal mais lii nag mooy vraie hypocrisie quoi vraiment mais maa ngi lay nuyu maa ngi lay siyaare bu baax quoi waaw di la waxaat félicitation waaw xam naa yow moom Poutine nga àndal quoi àndaloo ak ñeneen ñi opposition bi foofu quoi bien que Sénégal opposition bi nga àndal quoi mais maa ngi lay nuyu di nuyu El Hadj jaamu yàlla Matar Diawartu maa ngi lay nuyu di la siyaare di seet noo def di seet waa Allemagne yëpp quoi waa di nuyu kii kàlla waay Omar maa ngi koy nuyu waa di nuyu Gaye Diakité maa ngi lay siyaare soxna Soda maa ngi lay nuyu di nuyu Grand Thiam Yaxa Dia maa ngi lay nuyu di nuyu Fori Fori Mbos Fori maa ngi lay siyaare bu wér a wér a wér di nuyu Ablaye Diakité ak kadeti waay Maodo Mandela foo nekk ñu ngi lay nuyu El Hadj Niass ay waay waay El Hadj Niass El Hadj Niass yàlla na la yàlla dolli wér yàlla na la yàlla may wér ba nga fekkee bàcc yi maa ngi lay nuyu di nuyu waa Canada yëpp quoi waaw grand Omar Watt maa ngi koy nuyu grand boy séeréer maa ngi koy nuyu waa di nuyu Kanati waay Omar grand Omar Mbay maa ngi leen di siyaare bu wér a wér a wér Alaaji Ablaye Sarr waa Alaaji Sarr nam nañ la de ñu ngi lay nuyu luku mais luku xanaa koor gee la jàpp yaag Pape Dawda ñu ngi leen di siyaare bu wér a wér a wér waa di nuyuwaat kenn xam naa ni yow dama koy jël rek teg ko ci loxo grand Jibril Fadia mu yéegalal ma ko soxna Awa maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax soxna Ayda xanaa koor gee leen jàpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax quoi sëñ Baara Gaye maa ngi lay siyaare bu wér waaw.
asalaamaaleykum wa rahmatullah alors Dakar groupe siyaare naa leen man la jibi Thierno Jibril Bari grand boy Moscow ceerno bari bari no mbaɗɗa sawade selli no mbaɗɗa e tampere no no no ɓange mon waɗi toon no mban no mbat no mbaɗɗon e nguleyki a mbare no no wona nguleyki key fewno ɗo no mbaɗɗon e jangol ngol no mbaɗɗon e jangol ngol na keɓa ɓeñaɗi kortotante somo anda ɓe ɗi alhamdulillah mais contante bake ha ñing ñing widio bake ñing widio ñi ñatale a kañanta bake a ñi ñata a kañanta bake yeah well gis naa ni daal yow daal yaa ngi may boole ci gars yi wax nga dëgg de affaire bi nice na nii moom niñ ko doxalee baax na trop ñoom ñu ngi ci affaire élection yi di ko jàngale sama mbokki soose yi kooku Jibril Fati la ñoom Jibril Fati Jibril Fati maa ngi lay siyaare maa ngi lay siyaar bu baax di siyaare ñëpp di siyaare groupe bi di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp di ko ñaanal adduna bi yëpp ci kaw ba ci suuf ñëpp lay siyaar grand foyer grand foyer maa ngi lay siyaar grand foyer cuuraay li moo tasaaroo Sénégal ñu doon ni gars yi xamatuñu lu ñuy wax wala fi dañuy faral di léebu bëy bu jaaxlee sax màtte te leen nga dégg ay réponse yoo xam ne da ngay wóor ne li ñii ñii tontu nii dañoo xamul lu ñu war a mën a tontu rek waaye nañ bàyyi siisu bi rek nañ bàyyi siisu bi nangu wàññiwul dara nit sut la nga ne ko yaay njool mi loolu taxul nga ngàtt te lu du la kii daal nangu leen rek dañ ñëpp a nangu rek bu ko defee ñu nekk si jàmm quoi nekk ci olala ñun ñëpp ay sénégalais lañ waaw ñun ñëpp sénégalais lu néew ñoo fi nekk rek amee ñu di yàq Sénégal mais ñu bëgg Sénégal bari nañ de kon xéwal gara fooye gisuloo sama mbokk mi Moussa Boubacar Thiam dem ba worosoo gi di fa wax ay waxi dofam yooyu noonu dañoo ko sax ndeysaan gars yi li ñuy wax léegi tayatuñu ko cuuraay li la cuuraay la dañoo jëfur xam nga cuuraay li moom bu- fu mu dem rek gaa yi jëfur fu mu doon ku jëfur lu nekk ngay wax seen wax yëpp ay waxi jëfur léegi la Moustapha Diakhaté di woo naan ay mbokki patri mbokki patriotam yi ñu ngi lim ay gaa yi de ma ne ko yow de yow yaa ngi indi musiba yow ñi gaa yi doon wax ni ñoo bokk ci ci complot Adji Sarr bi ñëpp yaa ngi leen di wax ñu ñëwaat non Sénégal Sénégal a neex gara yàlla ay ci potum buur yàlla moo ay ci potum buur baar ba ca kanam incha allah maa ngi ci tali bi nii
salaamaaleykum nga wopp leen seen yaram jàmm ana Bakar Rendu Bakar Bawol Bawol Bakar Putin Baba Bakar Siif mais ziar naa leen sama gars yi leen ñaanal jàmm booy Moscou bari kooku de Jibril Fadi yàlla Jibril na nga def fay Jibi Sénégambia nakam boy naka nakam na naka naka naka naka foofu nag boy naka foofu Jibi maa doon doon comme sunu waa koñ sunu waa koñ taxay am na fi benn année boo xam ne Gambey xew ku demul Gambi noonu sa waay bokkoo léegi nag gars yi nekk suñ koñ ñëpp a doon dem Gambi ñëpp am na nag boo yoo xam ne dem Gambi da leen a metti woon nag te mënuñu dem. mais nag demoon Gambie ñëw nag daa nekkoon tiitër bu rëy côté zone bi ma dëkkee boo ñëwee nag changé langue bi ngay changé di wax comme waxin voix gambien bi dafa maanaam nit jigéen ñeeg dañ lay naw naan kii Gambie la jógee maanaam boo ku dugg Gambie boo génnee même boo defee deux jours sax boo ñëwee changé voix hey naka am naka affaire yi booy maa ngi dee cool am waa joo xam ne ki affaire da koo métti nag ci suñ koñ mi de mu ñëw gars yi toog nag naan nakam booy naka biir kaama booy di wax ay biir kaama Bakau Serekunda waa ji nag ne affaire da ko métti te moom ni gars yi waxee gàm bi xale yu jigéen di leen bàyyi xel ci koñ bi dafa am doole nag waa ji bëgg xeex la ci koñ bi naan barki barki yàlla laa wax de yéen a ngi may jëw ci ay ay ay gambien bu ma fi moytuwul dinaa jaar fa ñuy jaar ba yëg xar dinaa nangam ndeyam yéen a ngi toog di ma jëw ci ay gàmbe te gars yi kat dañ naan biir kaama bakaw serekunda ay naka biir kaama naka bakaw naka serekunda mu naan man yéen a ngi may jënd jëw ci ay gambien ku ma fi jëw dinaa nangam ndeyam temps boobu nag moom benn affaire la nekkoon dem gambi ñëw moom or la woon période yooyu xam naa boobu la gambien yi sama mbokk gambien yi jël naan ñu fii seen Europe ren dëgg de am na période yoo xam moom dem gambi ñëw non lu bari ngay am suñ koñ xëj na nag Argentine moo ko changé ñun dañuy jël benn surtout zone bi ma dëkkee nag sonu tukki la bu ñu jëlee Côte d'Ivoire ñun ñëpp ay dem Côte d'Ivoire bu ñu jëlee Gambie ñun ñëpp ay dem Gambie bu ñu jëlee Mali ñun ñëpp ay dem Gambie bu ñu jëlee Mauritanie ñun ñëpp ay dem Mauritanie bu ñu jëlee Argentine nag moom xe- seen koñ ba ma am kër goo fa dugg kenn a ngi fii suñ koñ fa ma dëkkee fu kër goo fa dugg kenn a ngi fii ci dëkk bi ñun noonu la ñuy tukkee fu waaye dem ñëpp dinañ fa dem benn paa daan nañu tooñ ca koñ ba di naan yéen seen koñ bi koñ bu garaaw la ñooy bokk dëkk bi ñu tukki te bu ñu demee ci dëkk sax ñooy bokk benn ndaw si ñooy doxaan ma nekk ah boobu de garaaw na kon paa bu ñu yab sax na ñooy bokk benn ndam benn benn njaay ma ñuy njaay te boo yéexee nag ñooy bokk benn dëkk ba ñooy bokk benn njaay ma te boo yéexee ñooy bokk benn ndaw sa ba ñuy doxaan ci dëkk ba ma nekk boobu de garaaw na moom très garaaw très très très garaaw gannaaw ba ma nuyoo nag di leen siyaar bu baax a baax a baax di ñëwaat ci Allo Dakar di leen wax ne gannaaw sama liib yooyu noonu rek Gambie ak Sénégal ak bawol bawol yi sunu son son bu mu dëkkee amul école nag amul mooy benn koñ bi nga xam ne doo fa am koy liggéey ci administration Sénégal te te yaakaar naa moo gën a avancé Diourbel moom xanaa ndimbalu yàlla la ak xanaa nangoo liggéey waaw amul ko xanaa gone waaw ñun de suñ doom yi moom xam nañ njëriñu jàng daal dugal nañ leen école moom ñëpp daal ñi fay nañ ay école yu seer seen doom yi pour nekk dara xëy naa futi yi ñoom moom mën na am ñu liggéey ci administration Sénégal ak suñu jerbaat yi loolu la waaye sama sama sama consort gi ak sama maas gi non non non non amul yaakaar naa koy liggéey waaw am nañ ci tuuti nag waaw xanaa ñaari nit ñi ma xamoon ñuy jàng ba ñuy xale seen yaay moom enseignant la woon loolu de moom am na ko mais bu ko passé non amut amut amut en tout cas daal mu ngi noonu loolu laa fi doon dugal tey en tout cas daal ma ñëwaat tey lii ay di njàmbat ca sunu Sénégal gee nee ñu nekk ne muy élection yee élection yee mu nekk di njam mu nekk mu xanaa élection élection yi Sénégal yi naan reenu ñaam bi kenn xamul fa muy damme waaye élection yi daal reenu ñi- am gaay gaay yëpp xam nañ fa muy damme élection yi ñëpp xam fa muy damme daal mooy loolu ndeysaan léegi laay wax démb laay wax sama waa kër rek ama man idi la may tooñ sama soxna nag ma ne ko ah dama bëgg ngeen wooteel Idi de mu ne ma Idi lan kër gi mag Sonko ko moom de kër gi ma ne waaw man te maa def dictateur boog sama waa kër léegi ma di ko tooñ ma ne ko dem leen wooteeg mu ne Idi lan Idi kooku daal lam ca teg kay bëgguma ko wax sax ma ne ah sama soxna kat
waaw asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek yal miin Bakar Endo nuyu ak ziar di nuyu Boy Moscow Jibril Fadia nuyu ak ziar bu baax di nuyu Jib si yal miin Ibrahima Diouf nuyu ak ziar bu baax yow tamit Eh, yéeg ba ci kaw fekk fii soxna Adja di ko ziar bu baax di nuyu tamit sister Soda la patriote Eh, yéegati ba ci kaw rek eh, fekk fii waa defe naa ñooñu rek laa jot a gis ñi des xaw nañ kawe tuuti di leen eh, souhaiter à tous une excellente journée.
ma ma dellusiwaat rek maa ngi nettali sama sama waa kër ma ne ko dama fa bëggoon a nekk dictateur kat bëgg leen a dicté naan la ma woote leen Idi rek xam nga rek xam nga rek samay man man ni ma mel waaye daal la ma ci déggee moom neexuma sama soxna ci al boppam naan ma kër gii la la la la ne ma barki démb am na ñu fi ñëw ay mbuusi suukar la ñuy yor di dugg ci kër yi pour ñu mu dañ ne waa côté bi waxuma nag ñan la waa côté bi wax nga ñin doon nee na ay mbuusi suukar rek lebale xaalis lañ fi ñëwee waaye ne rek lañ leen def na leen ñun kër gi sonko ko moom nee na koñ ba moom koñ ba moom sonko ko moom bawal suñ côté suñ côté boobu noonu te li ci gën a garaaw nag li ci gën a garaaw mooy daaw daaw dafa am conflit bu amoon sama diggante ak sama xarit sama gaay la nag sama xarit la mm, ko- nekk waaju am daraja fii ci dëkk bi ci Argentine xam naa duma bëgg a tudd turam mais dinaa juñ rek xam naa ñoom ñoom kii buñ ma déggee ñoom ñoom eh, sama gars yi nekk ci groupe bi nu ma tudd rek papakan bu ma déggee xam naa bu ma nee waaju am daraja dëkk bi daal jur yaakaar naa ci réew mi bokk nañu ci ko daraja ci dëkk bi ci côté yëpp nag naa macha allah yàlla ubbil na ko ci lu bari daal macha allah foofu daal laa ci yem. sama xarit la nag dañuy daaw dañu def ay non élection daawaate jéegi dañu nekk nag dañu ban juddoo ba léegi bañ nekk ay xarit nag dañu maase daanaka suñu àdduna yëpp man ak moom dañ ko def ay ay ay ay kii rek mais su ay xarit lañ nag. dañ ko def ay xëccoo man ak moom léegi nag ma ma tooñ ko ci élection yee passé ma ne ko man Idi sama famille suñ famille njuufeen bi yëpp dama woo sama famille njuufeen bi yëpp ma ne dem leen ngeen wootal Idi. ndax xalaat nañ woo nañ ma sax dagg ma war nag après maa ngi nettali histoire bu am solo nag sama gaayen bi ma nettali ko ma ne ko man jéem famille njuufeen bi sama famille bi dañ ma bëgg trop nekk samay xarit xale yu góor yi nekk ca famille bi daanaka samay xarit lañ dama def conseil yi dama def dama def daaw dama def conseil daal di yónnee fii xaalis ma ne daal woote leen idi ndax surtout to boobu nag la ci dugalan gars yi bëri moom lu- ñëpp daal xamoon nañ ko affaire xëccoo la woon ma yónnee fa conflit yónnee fa xaalis pour famille bi yëpp mu wax ci koñ bi dugg ci koñ bi wootal daal ñu bëri sama xarit boobu moom tamit def même ne moom tamit pour pour Macky Sall nee na ko woote di si këram dañ may toggi mën a mën a laa wax de famille Fayen bi mu nekk ñaari xëcc moom famille Fayen la man famille Diouf laa léegi mën na la toog këram de dama koy wax ba léegi mu naan ma billaahi togg ma mën a ma ne ko yow nit ñi wax ma ko mu naan ma war na yàlla defuma fa dara ma ne ko demal ndele mën na nga toog ba pare reyow nag pour rek ñu wotal Macky Sall ba pare ma koy ma ne ko yow dégg naa rey nga nag sax pour pour ñu wotal Macky Sall rey nga nag sax pour ñu wotal Macky Sall mais gis ngeen affaire boobu noonu la daaw famille Fayen beeg famille Dioufeen beeg gars yi na ca koñ ba dañu xaajaloo deux ñuy wotal Macky Sall ñuy wotal Idi mais loola nag mu amul ren ci suñ koñ ba ndax daaw affaire bi euh, ñun ñooy seul koñ bi nga xam ne daanaka fi ma dëkkee ci kër gu mag dafa mel ni lu xaw a xaajaloo diggante murit yi ak tijaan yi maanaam daanaka boo xoolee ñoo fa tolloo murit ak tijaan te ah ah, élection daaw ya daanaka mbir mi dañ ko xawoon a xëcc foofa noonu ci diggante murit ak tijaan yéen a ngi fàttaliku affaire dafa xawoon a ñëw foofa noonu ci affaire murit ak tijaan loolu sax bëgguma koy wax nii mais xam naa pour nettali rek histoire élection daaw yi daawaati jéegi yi yi amoon yee passé dafa mel ni lu xawoon nañu woon foofu léegi nag man ak sama waajooj moom ci yooyu daanaka dañ ciy dund di ko dañ ciy dañ ci affaire yi comme gëmuñu jax ñun ñaar daanaka yeneen affaire la ñu gëm mais affaire yu xëccoo yooyu daf ñuy neex ñun ñaar ndax da- ba ñuy xale ba léegi dañ ko bëgg xëccoo ay daayira kan ay jiite affaire yooyu noonu dañ ko bëgg ñun ñaar ba ñuy xale mu xëcc ma xëcc mais gis nga no affaire bu garaaw ren ñëpp affaire dafa jekki rek tourné ñëpp jëm ci sonko koñ ba tijaan yaag murit ya fa nekk yëpp ñëpp dañu tourné dem ci sonko séréer saak ibaadu yaag ña gëmul daraak ñëpp dañu wëndi ko jox sonko lu garaaw laay wax nag koñ ba ma dëkk mosuñu woon a xalaat ne leen dina fa mos a am ñëpp bokkoo di gis am benn gis-gis lu garaaw moo tax nag ñu ne ci terrain bi dañoo xam gis nga gars yi ne ci terrain bi maanaam euh, waa waa Macky Sall yi waa APR ñoom du ci télé ak rajo yi lañ xamee seen nit ñi dox ci biir dëkk bi di wax ak askan wi ñoo leen di jox information yu leen yéem yu garaaw nag ñooñu ñooy dugg ci biir nit ñi nit yu wax ak nit ñi nit ñi di leen jox effort wax ak yoo xam ne loolu dafay décourager nit candidat boo am xam nga dem ci nit ñi jox leen xaalis wala nga bëgg leen a neexal ñu ne ah ñun de wax dëgg yàlla gëmuñu xaalis gëmuñu dara ñun dañu am woot ki ñu war a wooteel pare te teg nañ suñu carte te kooku moom bu soobee yàlla dañuy wooteel nga am ay junne yi ne ci terrain bi fu ñu dem ñu wax leen même kaddu ay lu garaaw laay wax nii barki yàlla ñooñu nag ñooy jox Amadou Ba information yoo xam ne ñooñu ñoo jox Macky Sall information yoo xam ne sondage foofu lay génne ndax ñooñu dañoo dugg ci terrain bi pare am information yi ñoo ko delloo dañ ko naan fii dëgër na de wër na yàlla euh, loolu nag li may nettali loolu moo ci gën a garaaw xam nga nit ñi dugg ci biir terrain bi nga yónni leen ñuy wax ak askan wi am information yi fu ñu dem mu dëgër këcc ñooñu ñëwaat wax la ñu de- nga ne leen del nga yo- nga jox leen xaalis pour ñu duggaat ci askan wi mais fu ñu laal nit ñi gëmuñu alal nit ñi am benn mboot boo xam ne dañ ko jël rek pour pour avance pour am lu leen métti ñu war ko faj loolu nag mooy li gën a garaaw ci mbir mi xam nga xam nga dem ci nit sax jox ko xaalis xam nga muy négocier di dute naan yow kat war naa ànd ak yow mais dem ci nit mu naan la fii di wa ko moom nga yow mel yow ni ci terrain bi nga wëlbatikuwaat di xuloo ah affaire bu garaaw te loolu dafa dal ñu bari dal ku ma xam ku xam ne daf doon jàppale sama mën naa ko wax sama goro sama sama jëkkëru mag dafa dugg ci politique mais moom dafa mujj di ma nettali ne dafa mujj di xuloog nit ñi di jàppale candidat wala tukkuwaat bëgg a wax nit ñi ñuy topp candidat ba mujj fi ngay dem ñooña di la provoqué aw ay
waaw asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek yal miin Bakar Endo nuyu ak ziar di nuyu booy Moscou Jibril Fadia nuyu ak ziar bu baax di nuyu jib si yal miin Ibrahima Diouf nuyu ak ziar bu baax yow tamit Eh, yéeg ba ci kaw fekk fii soxna Adja di ko ziar bu baax di nuyu tamit sister Soda la patriote Eh, yéegati ba ci kaw rek eh, fekk fii waa defe naa ñooñu rek laa jot a gis ñi des xaw nañ kawe tuuti di leen eh, souhaiter à tous une excellente journée.
ma ma dellusiwaat rek maa ngi nettali sama sama waa kër ma ne ko dama fa bëggoon a nekk dictateur kat bëgg leen a dicté naan la ma woote leen idi rek xam nga rek xam nga rek samay man man ni ma mel waaye daal la ma ci déggee moom neexuma sama soxna ci yàlla boppam naan ma kër gii la la la la ne ma barki démb am na ñu fi ñëw ay mbuusi suukar la ñuy yor di dugg ci kër yi pour ñu mu dañ ne waa côté bi waxuma nag ñan la waa côté bi xam nga ñin doon nee na ay mbuusi suukar rek lebale xaalis lañ fi ñëwee waaye nee na rek lañ leen def na leen ñun kër gi sonko ko moom nee na koñ ba moom koñ ba moom sonko ko moom bawal suñ côté suñ côté boobu noonu te li ci gën a garaaw nag li ci gën a garaaw mooy daaw daaw dafa am conflit bu amoon sama diggante ak sama xarit sama gaay la nag sama xarit la mm, ko- nekk waaju am daraja fii ci dëkk bi ci Argentine xam naa du ma bëgg a tudd turam mais dinaa juñ rek xam naa ñoom ñoom kii buñ ma déggee ñoom ñoom euh, sama gars yi ne ci groupe bi nu ma tudd rek Papa Kane bu ma déggee xam naa bu ma nee waaju am daraja dëkk bi daal jur yaakaar naa ci réew mi bokk nañu ci kopp daraja ci dëkk bi ci côté yëpp nag naa macha allah yàlla ubbil na ko ci lu bari daal macha allah foofu daal laa ci yem. sama xarit la nag dañuy daaw dañu def ay non élection daawaate jéegi dañu nekk nag dañu ban juddoo ba léegi bañ nekk ay xarit nag dañu maase anaka suñu àdduna yëpp man ak moom dañ ko def ay ay ay ay kii rek mais su ay xarit lañ nag dañ ko def ay xëccoo man ak moom léegi nag ma ma tooñ ko ci élection yee passé ma ne ko man Idi sama famille suñ famille njuufeen bi yëpp dama woo sama famille njuufeen bi yëpp ma ne dem leen ngeen wootal Idi ndax xala nañ woo nañ ma sax dagg ma war nag après maa ngi nettali histoire bu am solo nag sama gaayen bi ma nettali ko ma ne ko man jéem famille njuufeen bi sama famille bi dañ ma bëgg trop nekk samay xarit xale yu góor yi nekk ca famille bi daanaka samay xarit lañ dama def conseil yi dama def dama def daaw dama def conseil yi daal di yónnee fii xaalis ma ne daal woote leen idi ndax surtout to boobu nag la ci dugalan gaa yi bëri moom lu- ñëpp daal xamoon nañ ko affaire xëccoo la woon ma yónnee fa conflit yónnee fa xaalis pour famille bi yëpp mu wax ci koñ bi dugg ci koñ bi wootal daal ñu bëri sama xarit boobu moom tamit def même ne moom tamit pour pour Macky Sall nee na ko woote di si këram dañ may toggi mën a mën a laa wax de famille Fayen bi mu nekk ñaari xëccoo moom famille Fayen la man famille Diouf laa léegi mën na la togg këram de dama koy wax ba léegi mu naan ma billaahi togg ma mën a ma ne ko yow nit ñi wax ma ko mu naan ma war na yàlla defuma fa dara ma ne ko demal ndele mën na nga toog ba pare reyow nag pour rek ñu wotal Macky Sall ba pare ma koy ma ne ko yow dégg naa rey nga nag sax pour pour ñu wotal Macky Sall rey nga nag sax pour ñu wotal Macky Sall mais gis ngeen affaire booba noonu la daaw famille Fayeen beeg famille Dioufeen beeg gars yi na ca koñ ba dañu xaajaloo deux ñuy wotal Macky Sall ñuy wotal Idi mais loola nag moo amul ren ci suñ koñ ba ndax daaw affaire bi euh, ñun ñooy seul koñ bi nga xam ne daanaka fi ma dëkkee ci kër gu mag dafa mel ni lu xaw a xaajaloo diggante murit yi ak tijaan yi maanaam daanaka boo xoolee ñoo fa tolloo murit ak tijaan te ah ah, élection daaw ya daanaka mbir mi dañ ko xawoon a xëj foofa noonu ci diggante murit ak tijaan yéen a ngi fàttaliku affaire dafa xawoon a ñëw foofa noonu ci affaire murit ak tijaan loolu sax bëgguma koy wax nii mais xam naa pour nettali rek histoire élection daaw yi daawaati jéegi yi yi amoon yee passé dafa mel ni lu xawoon nañu woon foofu léegi nag man ak sama waajooj moom ci yooyu daanaka dañ ciy dund di ko dañ ciy dañ affaire yi comme gëmuñu jax ñun ñaar daanaka yeneen affaire la ñu gëm mais affaire yu xëccoo yooyu daf ñuy neex ñun ñaar ndax da- ba ñuy xale ba léegi dañ ko bëgg xëccoo ay daayira kan ay jiite affaire yooyu noonu dañ ko bëgg ñun ñaar ba ñuy xale mu xëcc ma xëcc mais gis nga no affaire bu garaaw ren ñëpp affaire dafa jekki rek tourné ñëpp jëm ci sonko koñ ba tijaan yaag murit ya fa nekk yëpp ñëpp dañu tourné dem ci sonko séréer saak ibaadu yaag ña gëmul daraak ñëpp dañu wëldi ko jox sonko lu garaaw laay wax nag koñ ba ma dëkk mosuñu woon a xalaat ne leen dina fa mos a am ñëpp bokkoo di gis am benn gis-gis lu garaaw moo tax nag ñu ne ci terrain bi dañoo xam gis nga gaa yi ne ci terrain bi maanaam euh, waa waa Macky Sall yi waa APR ñoom du ci télé ak rajo yi lañ xamee de seen nit ñiy dox ci biir dëkk bi di wax ak askan wi ñoo leen di jox information yu leen yéem yu garaaw nag ñooñu ñooy dugg ci biir nit ñi nit yu wax ak nit ñi nit ñi di leen jox effort wax yoo xam ne loolu dafay décourager nit candidat boo am xam nga dem ci nit ñi jox leen xaalis wala nga bëgg leen a neexal ñu ne ah ñun de wax dëgg yàlla gëmuñu xaalis gëmuñu dara ñun dañu am woot ki ñu war a wootal pare te teg nañ suñu carte te kooku moom bu soobee yàlla dañuy wootal nga am ay junne yi ne ci terrain bi fu ñu dem ñu wax leen ni même kaddu ay lu garaaw laay wax nii barki yàlla ñooñu nag ñoo jox Amadou Ba information yoo xam ne ñooñu ñoo jox Macky Sall information yoo xam ne sondage foofu lay génne ndax ñooñu dañoo dugg ci terrain bi pare am information yi ñoo ko delloo dañ ko naan fii dëgër na de wër na yàlla euh, loolu nag li may nettali woon loolu moo ci gën a garaaw xam nga nit ñi dugg ci biir terrain bi nga yónni leen ñuy wax ak askan wi am information yi fu ñu dem mu dëgër këcc ñooñu ñëwaat wax la ñu de- nga ne leen del nga yo- nga jox leen xaalis pour ñu duggaat ci askan wi mais fu ñu laal nit ñi gëmuñu alal nit ñi am benn woot boo xam ne dañ ko jël rek pour pour avance pour am lu leen métti ñu war ko faj loolu nag mooy li gën a garaaw ci mbir mi xam nga xam nga dem ci nit sax jox ko xaalis xam nga muy négocier di dute naan yow kat war naa ànd ak yow mais dem ci nit mu naan la fii di wa ko moom nga yow mel yow ni ci terrain bi nga wëlbatikuwaat di xuloo ah affaire bu garaaw te loolu dafa dal ñu bari dal ku ma xam ku xam ne dafa doon jàppale sama mën naa ko wax sama goro sama sama jëkkëru mag dafa dugg ci politique mais moom dafa mujj di ma nettali ne dafa mujj di xuloog nit ñi di jàppale candidat wëlbatikuwaat bëgg a wax nit ñi ñuy topp candidat ba mujj fi ngay dem ñooña di la provoqué aw ay mujj fi nga dem ñooñu di la provoqué ay loolu nag dafa garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw loolu nag moo dal ñu bari ndax da ngay dem ba pare du doo am xol bu neex ci ñi ngay fekki yow yaa ngi dem pour bëgg a confronter ñi pour wax leen ne kat sama leader bi kat moo fi nekk pour jàppale leen yow fi nga dem ñooña di la provoqué ay lu garaaw nag moo am ci réew ma fee mu ne nii ñooñu nag ñoo jox information Macky Sall jox ko Amadou Ba ñooñu nag ñu ngi ne muut ak moom ñu xam lu baax xam li xew ci réew mi xam ne réew mi nit ñi dañu am mer muñ mën a faj bu bëgg a faj te ci élection yi lañ ko bëgg a faj loolu nag ñoom ñii ñoom Macky Sall xam na ko Amadou Ba xam na ko waa APR xam nañ ko ñëpp ñëpp xam nañ ne bu ngeen gisee Macky Sall jóg am lu mu dox ci fan yee yàggul dara dox dugg ci nit ñi def dem ci Sonko wax ak moom yónni doomam mu wax ak Amadou ci démb sax Jomaay Fay maa ngi koy déglu ci waxtaan yi macha allah loolu tam dinaa ci ñëw. xam naa li ma war a ñëw bëri na mais du ma ko du ma bëri naa naa waa jooju saaga wolof yi moom xam naa bëggoon naa ci ñëw mais garaawut naa ko naa ko bàyyi beneen yoon bëggoon naa ci ñëw kooku dox boobu saaga wolof yi.
salaamaaleykum la famille maa ngi leen nuyu di leen ziar tonton Bamba maa ngi leen maa ngi leen nuyu di la ziar di nuyu Papis Diawara Mbaye Mbaye maa ngi lay nuyu naka koor gi bari nuyu naa la Fore Mbos maa ngi lay nuyu Fore Demba lay déglu yow ak hélas Adja Ndiaye nuyu naa la Babacar Endo Babacar ñëwati na Babacar bu Idrissa Seck maa ngi leen nuyu di leen ziar waa tonton Bamba kii moom man d'accorduma ak moom ndax li muy wax nii. gis naa ñu ci sukkandiku ñoom itam di génn di wax lu leen neex ne dañu leen a war a jàppale ngir que ñu mën a voté wala ñu jëlal leen ay kaar coalition Diomaye de muy parti Pastef dañu nekk ci taaba taaba boo xam ne jàpp naa ne ba élection yi weesee sax dina bari ay commune yoo xam ne ay bor yooyu leen topp ndax ñu ci ne ñooy demal seen bopp te ñii li ñu bëgg amul fenn bu tabaski jotee ñoom ñëpp bàyyi la ñu doon def ki nga xam ne Bawol la dëkk nekkoon tey doon ñëwee Pikine wala feneen dina def ay fe pexe dem jëli oto ñibbi Touba lu mu guddi guddi ngir julli ji julli korite boo xam ne chaque année dina am ki nga xam ne lu gën a dëkk nekk waalo di liggéey nekk ca toole suba la julli dana fexe nu mu ñibbee te déwénee dina julli jiwaat incha allah lii nag moom mu nekk rendez-vous boo xam ne bu amee ren 2029 la fay amaat te ci la ñuy tànne ki nga xam ne moo war a jiite suñu réew kon ñii lii ñuy wax nii wala ak fi ñu toll ñu bëgg ne ñoom itam leader yi ku leen woo jot leen di indi bëgg a xas nit ñi te alors que toll nañ ci guddi yoo xam ne jot nit téléphone yombul kii daal moom man d'accord ma ci lu muy wax ndax am na ñu mu nit ñoo xam ne ñoo ngi bàyyi ko fii biti réew ñibbi Sénégal ngir voté ji voté ji képp mu leen yóbbu Sénégal fa la ñu bindoo dañuy dañoo bàyyi seen liggéey dem voté ji kon ñoom ñi nga xam ne ci réew bi la ñu nekk ku mënul ut say moyen say pexey bopp kii fi muy wax moom moo ko gën a xam dëgg la nag mën naa ne campagne war nañu wax ne nañu ñëw seen i dëkk waaye jour vote nañu leen yóbbu ku ci ne fa nga dëkk fa nga mën a des ku ci ne fa nga dëkk fa nga mën a des ñoom ñi nga xamante ne si ñu nekk ñoom it ne lañ xamante nañ bu oto amul nañu takki saret nga la waay comme bu dëj doon am ni ñuy jàllajee comme bu leneen doon am foofu naka la ñuy def ba déplacé wu nañu ko def fii ku ci ne da nga war a jàpp ci li ngay jàpp comme ni ko ñeneen ñi def am na ci ñoo xam ne li ñu mën lépp def nañ ko ñoom itam nañu def li ñu mën
Bakar en la nga def maa ngi lay ziar di teg sama loxo di nuyu bari yaa ngi may réer yaa ngi may réeroo beneen beneen affaire bi ndax murit ak tijaan murit ak tijaan ndax politique bi jar na ñuy xuloo kon de war nga leen ni tuub tuub nga leen war na wax de maam Alaaji Maalik ak maam ak Cheikh Ahmadou Bamba de defe naa ne ak maam Abdoulaye Niass defe naa ne woote wuñu woon pour gaañe dem di xëccoo di xuloo ca ndax politique bi de ak a ko jaradi moo tax man la Sénégalais dañuy nelaw ah samay wax samay wax jalu muus la li may wax bari maanaam ko samay wax jàllu muus di ngeen ko gis de duñu xeet woo xam ne bi pare nañu pour ay xamuñu sax li Ousmane Sonko di wax waaye comme daaw jéeg la woon xuloo murit ak tijaane yi sa seen koñ kooku baax na kon xam naa war naa soppeeku léegi niveau bi dafa tuuti lool lool lool lool lool lool maam tarixa yi sax am na ci dof yoo xam ne dañ koy yóbbu ci politique bi ndeysaan di ca xeex ak a xuloo ñu ni murit yaa ngi mutu yaa nga fee tiyaan yaa nga fee way way yi dof way kenn mosu koo gis waaye ñu woote tarixa yi ak ñoo sore fi gaa ñu toll mooy Ousmane Sonko mi tam fi muy woote ak a sore ak fi ñu ko wuysee doy doy na kéemaan loolu daal te bu ma ko waxee gaa ñi dañuy jëlale thème bi indi naa thème boobu ba tàyyi ni leen ndax sénégalais yi yéen pare ngeen gaa ñi moo ko waxee ñëpp ni patt jëlale li may wax waaye di ngeen mi ngi ci kanam de sénégalais Sénégalais ku ko dogal tubéy ngemb laa ngi lay xaar Sénégalais ku ko wutal tubéy buy def ngemb sax daf lay daf lay bett laa la wax ñun duñu peuple boo xam bi pare nañu Ousmane Sonko nag ndeysaan li muy woote ci- coow li moom topp na ko gaa ñi ñu ngi yuuxu di kii mais xamuñu sax li muy wax Euh, wuyu si nañ ko waaye xamuñu sax li muy wax yàlla na ko yàlla jàppale daal laay wax yàlla na ko yàlla jàppale moom Alaaji Maalik li mu woote xamuñu li muy wax Sëriñ Tuubaa li mu woote gaa ñi xamuñu li muy wax lu ci bari sax fi mu nekk lislaam bi folklore rek la fecc ak tëgg ak ah doy na waar daal ak ak ak def lu la neex ak ak wax lu la neex waaw mu- boo dikkee ci murit gi looloo fi nekk lu ci ëpp tiijaan gi tam boo fa demee lu ci bari lu ci bari xamuñu nu mu demee te akay akay akay loo- akay akay woote yu sell woote yu sell la de Cheikhu Tiijaan de li mu jàngale woote bu sell la lu àndul ak daray caaxaan maam Sëriñ Tuubaa tam li mu woote daru daray caaxaan nekku ci waaye gaañe dañ ko bëgg a njambaan lépp la ñu bëgg a njambaan politique beeg tariixa yeeg diine jeeg lépp lañ njambaan ci di nga wuy ji woote politique yóbbaale sab sëriñ woote wuy ji woote wu- wuy ji diine yóbbaale sa politicien yëf yi di jaxasoo na xam naa mii réew de ko mën a lijjanti yaa fi man ah dafa ruslu sax dafa gàccewu daal dafa gàccewu daal Ousmane Sonko nag moom li muy wut yàlla na ko yàlla dimbali ndeysaan yàlla na ko yàlla dimbali waaye jafe na de, une mission très difficile mu ngi mel ni bànnu Israël rek bi leen bi leen Moussa libéré ba noppi dañu wëlbatikuwaat di jaamu xaram yi ñu jële woon ci Égypte ak ndax ak Samirna ba Samirna Samir ba ba nga xamee ne ànd naa ak ñoom seytaane su ca rax la Moussa ba mu génnee ca tawa xuloo naag rakk ji sax waaye jukkoog borom pax nañu meloon ca ca ca ca Égypte jukko yooyu lañu yóbbaale Israël waaye Sénégal yi itam jukkoog borom pax suñ jukko yi baaxul maa ngi nuy Jibril Fadiya maa ngi koy ziar bu baax ndeysaan dina xam fi may waxe dina xam fi may waxe ñun ñi seen jukko yi alxuraan li mu wax rek Adja Ndiaye maa ngi lay nuyu loolu ngay tàcc ma di ko wax bés bu nekk du ma soppi wenn askan seen mbir lu dul seeni jukko dañ ko soppi loolu la alxuraan wax seen jukko yi soppikuwul seen jukko yi dafa lëndëm soppikuwul loolu rek ma metti ci affaire situation bi li ngeen di wax yëpp indiwu leen loolu ci biir waxtaan bi de bu ma ko dugalee rek gaa ñi jëlale bu ma ko dugalee gaa ñi jëlale waaye yéen a ngi jëlale loo xam lii jalub muus la de ma ngi feeñ ca kanam li may wax ma nga ca kanam di ngeen ko gis incha allah doy na war salaamaaleykum waaw sama jarbaat Mandela géej naa laa dégg maa yaa ngi am jàmm maa ngi lay ziar ci koor gi di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa njaboot Euh, nuyul ma sëriñ euh, Mouhamed Mboub nuyul ma ko siyaareel ma ko géej naa ko dégg yal na yàlla baal ñu suñu bàkkaar te nangul ñu lépp luñ jaamu te yërëm ñu moom suñu borom ci weeru yërmande bi maa ngi lay ziar di wax ne dégg naa dëgg de dégg naa dëgg de man xalaatee ma ko woon noonu sax waaye lañ naan xel day pu- puso bu réer la gone gone man na ko for comme mag man na ko for waaye yow mi day li nga wax moom kenn mënu cee teg dara delloo si nga ma de wax nga dëgg de man de gisewu ma ko woon noonu mais wax nga dëgg de man naa am sax dañ koo yebal de muy jaxase xel yi ndax li mu wax ni boo ko njëkkee dégg da ngay tiit da nga naan ah kon gaañi nañu yebale jéem a yónnee xaalis ñu ay gaañi ay kaar yóbbu leen la ñu xool nu ñuy def ba ñu dem wate ji ndax am na ñu bëgg a wate ji te yoruñu xaalis ak yu demee noonu wax nga dëgg de wax nga dëgg de wax nga dëgg de dégg naa dëgg de wax nga dëgg de wax ji de ginnaaw bi nga waxee nii wax ji mel na ni taajuwul moom li mu li waa ji li mu wax nii wax nga dëgg de sama xel sax day dem ci ni mën naa nekk ay propagande di wane ni gaa ñi dimbaliwuñu waa Pastef dimbaliwuñu seen militant yi yooyu yëpp dafay am ci àdduna daal waxuma ne nag waa ji loolu la wax foofu la waxee waaye mën naa am yooyu yëpp ay lëndëmal xel yi laak yooyu li nga wax dëgg la sëng lëf lay jar ca ngaay maanaam lu la jaral na la jaral ndax bu fekkente ne sacrifice la te fa la Sénégal toll nit war naa mën a paas dem wote ji fu ko neex kenn waru laa mën a téye ab xa- euh, ndax nit ñaa ngi faj seen soxla yi di li nga wax dëgg la dégg naa dégg naa dëgg de gisewu ma ko woon noonu nag waaye day leeral nga sama xel de ci li nga xam ne moom la waa ji wax ni boo ko jotee rek dama am nañu ma ko yónnee ak yooyu sax ci saa si moo tax moo tax euh, teey ci ndox lañ ko ci nit ci ndox lañ ko taam waaye ci nit lañ ko lañ ko séenu waaye li nga wax dëgg la de moo tax def ndànk dafa dafa baax ah waaye ma bàyyi naa xel ci li nga wax nii de bàyyi naa xel ci li nga wax nii de macha allah macha allah rafet naa sa xalaat lool booy séeréer maa ngi koy nuyu moom tam ay xalaat yu rafet lay la la yor booy séeréer maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar yow tam bu baax gëj naa laa dégg maa ngi lay ziar ci koor gi waay Eh, xam naa ba ci kanam jërë ngeen jëf waay
xam naa bëggoon naa ñëw ci Moussa Bokar Thiam daal waaye garaaw naa ko bàyyi la xupp na sama mbokki bawal bawal yi nga xam ne ñoo xam ne di jaay ak ña fay nekk di maçon ak saa Touba yeeg ay ci lal yeeg mécanicien yeeg am na ñun daanaka ñun côté bawal ñoo nekk foofu di liggéey Moussa Bokar Thiam nag xupp na nu wax na nu lu ñun daal bés bu ñu dof dof la ba wooteel keneen dina métti ci ñoom lool dina métti ci ñun lool ñu nekk foofu noonu Matam ah garaaw na daal en tout cas daal bëggoon naa ci ñoom mais garaawul Moussa Bokar Thiam daal wax na lam ñu bëgg a wax te noonu mu wax noonu boo bu fekkee ñun ñu dëkk Bawol di jaay liggéey ci dëkk yooyu daanaka bët boobu la ñoo ñu fa nekk noonu te nu nekk ci biir Sénégal moom la ñuy xoolee gan yi fa nekk Bawol Bawol yi dëkku leen fi lu garaaw dëkku leen fi waaw dëkku leen fi ñoom noonu la ñuy xoolee la moom do lu mu dëggal la rek mais ñooñu dëkk yooyu noonu daanaka ñu ñu bëri noonu la ñuy gisee gan yi fa dem surtout Bawol Bawol yi souffrir nañ ci lu métti nag da ngay mel ni ku jógee nag euh, euh, yow mu tukki euh, ne ci biir étrange ci biir dëkk yooyu dëkk yooyu noonu noonu du caaxaan ay dëkk yooyu mbokki bokkar sawaay moomu ne noonu Samba Thiam moomu ne loolu mu wax noonu du i- i- bawal bawal nañ ma ci dëggal xam na bawal bawal yi xam dëkk dëkk yu bëri yooyu de da nga ma- da nga mel ni da nga ne at- étranger da nga ci biir Sénégal da nga mel ni étranger étranger nga fa lii moom lu ma lu ma xam la te lu ma dund la waaye nag garaaw loolu moom amul benn problème moom da koo dëggal rek Euh, xam naa fi may mujjee mooy discours saa waay macha allah démb discours jomaay bi non daal na nag bi mu am ak wàllu fajri moom seetaanuma lépp nag ndax ay daggit rek laaj si daan mënuma seetaan li yëpp mais laaj yi tegu na waxtaan wi neex na lool macha allah te
ma Maodo Mandela Mboup maa ngi lay siyaar Maodo Maodo vidéo bi ngay wax noonu Cheikh Niass moom li muy wax xam naa ku nekk na nga koy déggee waaye man balaa may déglu vidéo bi sax fekk na man maa ngi man sama boor laa xam nag maa ngi dox ci demee noonu ndax maa ngi woo sama benn jarbaat sama doomu mag bu nekk Ziguinchor fa lay jàngale Euh, may wax ak moom ci suba gi ne ko yow fan ngay wootee mu ne ma moom Kaolack lay wootee ma ne ko ah lu mu nu mu fa demee préparé nga mu ne ma da nga ya- da nga dem mu ne ma man de papa daa man ba moytul du ma du ma dem ma ne ko ana sa soxna mu ne ma sama soxna moom jox naa ko li jënd naa ko ba mu ba mu dugg ci kaar yi Touba lay wootee moom fa la dëkk mu ne ma sama soxna moom ma nga noon dem na moom fa lay wootee ji daal waaye man moom Kaolack laay war a woote mais ba moytul du ma dem après ci biir waxtaan ci laa comprendre xam li xew ma laaj ko benn frère am moom tamit rakkam mu expliqué mu ne moom kooku moom mi ngi Kaolack fa lay wootee amul benn problème ñooñu amuñu problème ak sama yeneen jarbaar mun na ñëw ñëpp fa la ñuy sànnee carte ñooñu garaawul quoi après ak yeneen yeneen ma ne ko garaawul loolu dinañ lijjanti loolu nga dem Kaolack woote ji te man maa koy yóbbante paas mu dem Kaolack woote ji delluwaat parce que dama ne ko da nga da ngeen di jàngale mu ne ma am nañ xamoon naa nga ñaata fan dinañ fi xaj mu dem ñëwaat du am benn problème ma ne ko garaawul yooyu nag xëy na ci ak yi demee noonu lay tax di wax parce que nag Maodo yàlla xam na ko ne suñ boor boobu ca Saalum am na ci ñoo xamee ne dañuy jóge fu sori dem war a wote ji ñenn ñi fa ñu dëkk eh, mooy loolu buñ am passe pour dem fa yooyu yëpp lu am la du nag dañ ko war a gàll rek waa Pastef rek ñoo leen war a defal lépp parce que liggéeyu réew mi dama jàpp ni kenn ku nekk war nga cee mën a dugal sa loxo léeg-léeg xam naa déggin bi mooy jafe rek ak it moom it xëy na wax jafe waaye bu waxoon ne ñu leen gars yi seet ci ban anam lañ mën a jàppalee ñenn ñi nekk ci kaw gi te gis nga loolu mu wax noonu ci kaw gi yéehée bari na fi loo xamee nii mooy moom tax moo tax waa gars yi di gars yi di ko gagné de seen bourse familiale yooyu ngay dégg ak ah, problème mu moyens yi leen di yóbbu ñuy wata ji loolu moom la am la ndax lañ koy lijjantee kay xanaa mooy wax ji waaye bu fekkee ni gars yi mën nañ cee dugal seen loxo wala ñu def communication pour ah, xool ñu dëkkee gox yooyu te yàlla xaw leen a xéewale dara buñ ci mënee jàpp lijjanti seen bëkkandoo yi ñu dendal ci kaw gi mbirum transport dina doon baax loolu moom lu baax lay doon problème communication bi xëy na mooy des ak euh, déggin bi daal man de fa laa koy déggee man weddi wu ma li mu wax cent pour cent de parce que man maa ngi ciy mos ci li muy wax am naa ci ñoo xamee nii te kaw ga la ñuy dem di wootee ji te amuñu paas bu ñu jógee Dakar wala bu ñu jógee Mbour wala feneen ak feneen am ñu jógee am ñoo xamee ne ci yenn village yi ndaw yi la ñuy nekk war a dem ci yenn kii yu mag yi te amuñu leen yóbbu loolu moom lu am la nan lay saafara woon nag dama yaakaar ne ñëpp ci war a jàpp ak waxtaan waaw waaye këpp ko lépp waa Pastef yi tamit ma ne loolu wax dëgg yàlla jàpp naa ne du noonu nekk leen si jàmm.
seede yàlla tisoli naa ko sax ma ne ko seede yàlla ti- tisoli naa ko sax li li xam maanaam la am nga wax ju yenu maanaam du waxu politicien yaay jàmm li taxoon mu neex ma daan na wax ne man du ma politicien lu ma leen bëgg a wax dama leen koy wax lu ma la xalaat dama leen koy wax mais pour kuy politicien day taxaw daal di wax ne man kat wax leen loo xam ne moom mi koy wax sax gëmu ko mais wax la loo xam ne xel yow même boo jàngul sax ni lii dafa logique loolu la sa waay def démb ci waxtaanam bi daray politique amu ca lépp dafa logique lépp logique macha allah la ma ci jot déglu moom logique na loo xam ne daal lu war a yenu maanaa la man mi jàngul sax lay tegal taawal nga xam ne xel lii lii ak lii bu ñu ko defee mbir yëpp tegu ci yoon mooy jub rek comme nam ko daanee jub daal awal yëpp ci yoon ku ne fa nga war a nekk nga nekk fa en tout cas wax na lépp daal en tout cas daal jarul sax ma ca delluwaat mais wax na lépp daal yàlla nañ suñu jiglaay rek yàlla nañu yàlla yàlla nañu yàlla dégg rek ci ñaan yi ñaan ñun ñëpp man nag wax dëgg yàlla waa Idi laa mais Idi nag moom xam na ne xel moom sax fi mu ne nii xam nga dama doon waxtaan ak benn waay ci Idi sax laay mujje waaj naan Idi dafa woor sénégalais yi moo tax xam nga mu nekk deuxième dem ci Macky Sall xam nga Idi dafa woor sénégalais yi moo tax mu nekk deuxième dem ci Macky Sall dafa woor sénégalais yi ma ne ah waaw da ngeen a xamul li géej gi rek Idi day mag te borom xam-xam la Idi day mag te borom xam-xam la loolu nag maa leen koy wax lu tax ma wax ko ñu bëri dañ na waal Idi day mag te borom xam-xam foo teg loolu ma ne Idi yëg na lii doon ñëw yëg na ko de yëg na ne Sonko 2000 maanaam année yi ñëw kum ci taxaw rëq sa ndig léegi nag loolu boo amee nga nekk deuxième ci élection war a mën a dugg ci gouvernement mën a am ngay problème sa wàllu bopp yaa xëy ci am na loo xam ne xel a ko yàggale Idi Idi umpale wutoon fii mbir yi toll xam na ko bu xamoon na ko bu baax na mbir yi fii lay dem léegi nag nga toog fi di gëm-gëm yi te yow sa xam na ne Sénégal moom yàlla dogal na yow pour nga amati fii loo xam ne nit ñi dañ la teg loolu seex na maanaam ba nga ko nekkul ca ca bañ naan deuxième tour am na rek ba nga ko nekkul rek war a toog maanaam jeex na bay way na mbuus bay way na mbuus ñun ñu fiyel yi nag dañ koy gëm ba tey ñun moom dañu fiyel dañ ko gëm dañ ko gëm ba tey mais nag fu mu daanu rek ñu ànd ak moom daanu noonu mais en tout cas en tout cas Idi dofutoon xam na ñun ñi ko topp itam xam nañ ne la mu defoon sacrifice bu met bu mag la dina metti ñeen ñi nag ñi nga xam ne moom dañoo bëgg Sénégal dañ koy ba ci sensé mais ñun ñi ko bëgg moom dañ koy topp ci sensé ndax li ko waral mooy xam nañ la mu doon def lu mu firi ne xam nañ ne élection yi di ñëw dafa am boroom ñun ñëpp xamoon nañ ko duñ ay dof xaaj ay nekk ay nit lañ ñun ñëpp xamoon na élection yi ñëw nii dafa am boroom neexu kii élection yi ñëw nii boo gisee xalifa gaa yëpp di rey seen bopp bëgg na wor ko bëgg na wor li wor gi ñu waroon ay ay ay kii ni ay Barthélémy Dias ñoom ñoo xamoon nañ ne fi mu ne nii warante la war lañ nekk fi mu ne nii mooy benn sacrifice lañ defoon mooy sacrifier Sonko génn ñoom loolu rek lañ tegoon muy plan te mbi affaire bi affaire u guerre la affaire u banditisme la daa am politique boo xam wax dëgg yàlla moo tax bu leen dal ci kaw xalifa bu leen daw ci kaw Barthélémy Dias daa am foo xam ne affaire u banditisme la daa am foo xam affaire u banditisme la léegi nag war nga moom day day mooy rek après ñu jéppi la ah bu jàppee nag nga am li nga bëgg rek loolu moo fi ne mais gars yi comprendre leen war ga gars yi waroon war ga gars yi waroon teguñ ko woon fenn fu dul xam nañ ne mbir yi bu jëkkee aw yoon ñoom dañ leen di fàtte kon nag wax dëgg yàlla waa ji sacrifié ko balaa lii xew di xew nga teg ko sacrifié boy na nag lu yàlla dogalu rek dogalu ko mais nag affaire daal mbiru banditisme la jaay nañ ko ko mooy na jeex na en tout cas mu ngi noonu Idi tamit dofut xam na ne xel affaire yi fii mu nekk nii fii la doon jëm te xam na ne yàlla dogal na mu nekk deuxième ci élection yi mu jéem a jox mu jëm wax ak Macky Sall te période boobu Macky Sall am lu mu bëggoon xamoon na ko bu baax Macky Sall am na lu mu bëggoon ah mu jaay boppam daal di dem ñu jox ko lañ ko jox nag ah mu faji soxlaam nii mooy secret bi. léegi nag ñun ñëpp xam na ne élection yi fi mu taxaw moom ñu am xam yow xamoon na fi la jëm si kon nag mu ngoogu ma jàmbal jaañ mi nga xam ne moo gën a bañ Sonko waxoon na ko. ba élection yi passé ñu daw at lañ ne na ma dem na Touba di wax ak sëñ Bass loolu moo xam naa moom xamoon na xaw ma sëñ Bass lan wax na ko noonu wax la waaye en tout cas xamoon na ne après ñii buñ teel a yàq buñ leen teel a jóg ci ñoom réew mi seen loxo lay mujj ma jàmbal jaañ waxoon na ko te moom moo gën a bañ ñoom Sonko en tout cas daal ndax yaa ngoogu jaa ngeen jëf.
Bakar Endo Bakar Endo Moussa Babacar Thiam boo xam jooju wax dof la kooku jarul def du débat du débat te bu mu découragé gars yi am na ku ciy tiit Moussa Babacar Thiam mooy kan ci au Sénégal dépassé na affaire yooyu affaire yi wolof ak yi pël ak yooyu ñun ñu dof yu doppoore lii ñooy xalaatee foofu di ci jéem a dugal nit ñi Sénégal dama la wax ne ne weesu na foofu yàlla mi ñu tim xam ne Sénégal buy am problème du jóge ci ay affaire kii séeréer la pël la loolu nit ñi dépassé nañ loolu waaye loolu nit ñi dund duñu affaire yooyu affaire pël ak yi séeréer ak yooyu ñu ko bëgg a taal dañ koy jéem mais du mën a sotti loolu mënut a sotti biir Sénégal yooyu ci yeneen réew lay doon Moussa Babacar Thiam Thiam ay waxi picc lay wax kooku boo xam bu ci tardé woo sax di wax xanaa xool ko ree man dama ko xoolaan ree ko ree ko ñii dañoo nekk ci beneen monde day dof lañ sunu mbokki tugalóor yi nekk ak moom foofu war a war a soogi ñooñu ñoo koy gën a ñooñu sax lay gën a njëkk a amal problème bala mu am ak problème wala fee fa nekk am na loo xamee ne nii dafa am nit ñi ñoo am na ñoo xam ne du dañoo bëggul dégg sax façon yu demee noonu wala ngay ñëw di jéem a néewal benn xe askan wala benn xeet bu nekk seen boor loolu gars yi bëgguñu ko Sénégal sénégalais dundul loolu sénégalais loo ko mën a waxal yeneen ko koy waxal mais yooyu bëgguñu ko quoi yooyu sénégalais ko bëggut ay nit ñu manqué nit foo dem nag kuy dox yu demee noonu mooy ki bokk ci ki nga xamee ni ca xeet wa mbokk moo ca gën a des gannaaw boo leen doon xool boo xool leen jëmuñu jëmuñu fenn lañ jëmoon waaw poste moo leen dab salaire dab leen ñuy am xaalis di fayeeku par weer am luñ musul woon a am seen aduna ñu yaakaar ne fii la aduna yam saar yooyu ñooy génn ci façon génn yu mel nii ñi jarul ñuy sax di ko déglu Moussa mi wérul kat xam nga ni wérul kii taxaw lu mu fi te lu mu wax na bu wëlbu dugub su ëllëgee bu gaa yi génnee mu génn baaluwaat àq ah am na ñoo xamee ne dañ am problème mu xel ni nga leen di gis ñu solu yére yu rafet costume yu rafet wala ay ay ay mbasin yu rafet yore oto yu rafet di dawal mais ay dof yu ñu peentir lañ ay nag yuy daane lañ dara lañ xamoon.
macha allah sëriñ jibi si bi kontaan na baake baake mooy kontaan naa bu baax a baax a baax a baax mbay gay maa ngi profito di la wax ni mi kontaan na baake baake su yoon jeexul waaxu sil du jeex incha allah dinañ waxtaane sunu bopp wax
li nga wax nag sa waa kër yooyu noonu waa Garendo man man fa ma sama dëkk man sunu kër ga ñun ñun kër rabel yi lañ leen di wooye kër rabel ndax ñun sunu sunu kër ga ñëpp ñëpp ay sonk lañ moo tax gars yi dañuy wooye dëkk bi gars yi dañuy wooye ah xanaa du kër rabel yi ñii ay rabel lañ ñii ñii ay rabel pire lañ waaye nag léegi mbir ma dafa dafa law cuuraay yi dafa dugg ci dëkk boor yooyu yëpp gone yooyu yëpp koo ci wax sonk la lay wax ma ne leen yéen na ngeen xamul li xew sonk gone yi ñoo ko teel a capturé gone yu ndaw yi ñoo njëkk xam sonk ja wàll ko seen yaay ak seen papa ak seen najaay yi mais léegi ma ne la ko da ngeen doon jàmbat da ngeen li ñu woowee rebelle yi rebelle yi mais fi instant bi ñuy wax nii ma ne leen kon kër gi kon léegi dëkk bi bari na ay rebelle la ndax dañuy ànd ak sonk bari nañ léegi foofu ma ne ko ñaw ah bon yii daf daf la rek Sénégalais ngay xool ak wanu ak xéewal laa lay wax ngay wanu xéewal mun duñu dañoo mën a weddi quoi ñun yàlla dañoo nattoo dañoo mën a weddi dañoo du ñuy nangul kenn moo tax lu bari dafa ñuy rëcc dañuy raw ba jaan ji romb ñuy dóor ci watit bi loolu mooy suñu problème mais buñ teeloon di nangu kon yu bari duñu dal mais ku ñëw rek ñu la du waaja du waaja waaja romb la li dem yaar oxo ñu fi jàmbat Cheikh Anta Diop ñoom Mamadou Dia ñoom saar yu mel noonu ah buñ jógee di tuuti suñu sëriñ si te boo fi nekkee gars yi loon xeex sëriñ bu nekk def nga fi lu nekk pour am loo fi saxal waaye say mbokk yi la gën a jege ñoo doon xeex ah bañ ram ba bañ dem nag moom li maam Cheikh di wax naan Sénégal moo neex a moo neex a dee di naqaree dundee boo fi dund façon xeex bu nekk dinañ la ko xeex boo bëggee tekki dara waaye boo fi dee ñu def la xutbu wala def la wàll yi wala bëgg laa def yenente Sénégal non Sénégal a ngi noonu rek yàlla ñu yàlla yërëm
waaw tonton Bamba si si noonu la fa demee nag te vidéo bi man xool naa panel yu bari nit ñaa ngi koy tas ci laa gis sax am na ndaw yoo xam ne ñoo ngi naan buñ leen mënoon a dimbali ñu jël biis ak ñu jëlal leen ay kaar ak te loolu wax dëgg yàlla euh, Pastef mënuñu ko ndax euh, bi ñu dëgmalee campagne yi rek gis naa jafe-jafe yu bari yu ñu am ndax euh, Pastef kañu yi mu doon def yëpp daanaka mën nañ ne euh, euh, dem na ci àll bi lu ko waral mooy jëlee nañ ko avocat yii ñenn ñi am nañu nekk nañ ci kaso bi war a ngénte seen ginnaaw ñu ngénteel leen ñii ordonnance yi ak même bi nga xam ne ñoo ngi génn ci jeel bi am na lu ñu warloo ak ñoom ba pare dafa tombé ak ñu war a dugg ci campagne ak campagne bi nga xam ne dañu ko dàkkaat mu nekk ay loo xam ne yombul daal yombul te ñii eh, moom sax gis naa ni ah, mu ngi doon liggéey tout le temps ngir que Pastef am ndam man kanamam xàmme naa ko Saalum Saalum la kanamam xàmme naa ko bu baax mais tamit eh, eh, yombul daal te am na loo xam ne bu ñu ko dee wax eh, lu ñu jural njariñ c'est ça loolu képp la maa ngi lay nuyuwaat di la ziar di nuyu Jibi ak eh, Laay Sarr Eh, Laay Sarr gën na la dégg yow ak Jibi ak kan eh, kan moo fi wàccaat eh, Babacar Endo Diop siis Diop gis naa ko fi barki démb Maxtaar Jafartu ñëw na maa ngi koy nuyu di ko ziar Jibi Sénégal bi maa lay nuyu di la béggee lu bari Babacar Endo Babacar Endo macha allah Babacar Endo man di nga ma rey quoi li tax mooy Babacar Endo Babacar Endo moom li muy yëg lay wax moom moom moom wax ji non Babacar mooy ñi nga xamante ne si ne daal seen jàng bënnul lool waaye seen expérience ak dëggu li muy wax Babacar li nekk ci moom lay wax li nga wax dëgg bu wér la élection yi wees dafa am lu bari loo xam ne feeñ na ci ndax am na ci tijaan yoo xam ne ba tey jii nii dem nañ topp ci gannaaw Amadou Ba lu ko waral mooy candidat wu Macky Sall man mii di wax ak yow taaliba Cheikh la tijaan bu mag la waaye dama gis loolu fa ma dëkk man fa ma dëkk man dama ko fa gis gis ko feneen Euh, euh, euh, am na ci nag loo xam ne ñoom jàpp nañ ne Macky Sall comme këru gan yooyu mu ñëw àggale Tivaouane nga def ko ci xale bu ndaw boo xam ne euh, euh, euh, euh, moo ngi doog a dugg ci tariixa wala nga gëmloo ko kii moo ñu faale kii moo ñu nawloo kii moo ñu lii kii moo ñu laa alors que ni képp ku ñëw nekk comme président li mu warloo Tivaouane ak Touba ak Ndiassane ak feneen loolu la warloo ko ñëpp te ñooñu sax wax dëgg yàlla dëkk yooyu dañu war a mën a dugal euh, économie ci réew dañ dañu bokk ci ñi parti ñi ñiy doxal économie réew bi kon njiit bu fi mënti ñëw war a leen bàyyi xel teg fi loo xam ne dina mucc ayib mën na nekk te war na mën a nekk mais loolu rek warul doy nga ne mu def benn salle wala mu def fa benn hôtel wala dara rek ñu ne voilà wala mu gas fa forage ñu ne kii daal moom la ñuy votel te alors que ni boo demee euh, salle boo demee ci àll bi am na fa ñoo xam ne say taalibe yoo xam ne boo wootee ñoo fiy jiitu waaye ñoom fu ñu dëkk ñoo ngi bëgg a dee kenn euh, ndax parce que kenn xamu leen Euh, te amuñu chance boo xam ne tam am nañ gàmm wala màggal bu mag boo xam ne média yëpp danañu daw jubali foofu en tout cas daal yàlla ñu yàlla defal jàmm te may ñu ak déggoo Moussa Bokar Thiam moom jàpp naa ni moom li muy def dañuy defaral rek ndax kooku moom man gisuma loo xam ne jariñ na ko waa ña mu bokk day wane ne rek seen melokaan ak seen nekkin ñoom man loolu laa gis ci moom te tout le temps moo ngi koy jëfee te incha allah ndam lay doon rek ndax euh, jàpp naa ni bu fekkee ne moom affaire ethnie la indi tey BEPA gis nañu lu mu waxoon tey mu ñëwaat BEPA mu ngi dal ci kaw ndongo daara yi tey mu ñëwaat indi affaire ethnie ah na doxal rek
Babacar Bës Putin Endo gëmul dara naa fi yoo koromaag nam nu mbiw maa lañ giree tàngas ne yow daal Babacar li ma la mën a xamal te xamal la ko mooy Idriss Seck mii yow bu la jaakaare ma xam ne teg na ca loxoom ci concu sàmm séeréer bi daw donc gars yi dañ ko doon dox sàmm so ja- loxoom teg teg na loxoom ci sa concu pël buy daw waaye bii dama naan teg na loxoom ci sa ci concu sàmm séeréer buy daw dara du ko gis yow gëmoo dara ah mu ñu sonal yow Idrissa Seck moo naan mag la am na xam-xam yow yooyu ngay jàmbat yëpp benn du problème mu Sénégal yow Sénégal li ñuy jaayu at yi yëpp du problème mu ku am xam-xam du problème mu mag looloo ñu tardeel di wër naan loxo yi dañ koy teg ci mag dañ koy teg ci ku ku am xam-xam nañu tànn ku jub ku maandu koo xamee ne nii dañ ko jàmbat biir ak bitti waaye dama ne la ku nekk fa ku dem fa affaire bay xel xellee ko fa rëbina yi di ubbeekoo di sotteeku mu nekk ca ba jóge fa te tooyu ca benn boor kooku bu ne mën naa leen a régler seen rëbina bi ba ndox di ci tuuru di yàqu war nga ko mën a gëm te boobaa ngi ci waxee ba léegi kenn génnul nag ah démentir leen moo mbokk mii ñu sonko sama ñaari cousin yooyu Basiru fii la wax nee na moom loxoom dafa set wecc ñun borom loxo bu set la ñuy wër waaye jox ko ab mag wala ab intellectuel bu jàng te gën a dënge jubut kooku taxul ñuy wax Sénégal li ko téye mooy ay njiit yu jubut Sénégal yi boor boo wër rek gis ko ko xamee dafa yàlla da ko ci ubbi munu ci jàng ci xam ko bu baax a baax problème bi mooy ku jub loolu la ñu raflé ñi mel ni Babacar bés puting end ñoo bari Sénégal seen bopp yi macha allah la ca nekk buñ ko tegee ci suuf nga ni ma ngoog waaye dañoo dëng yaa ngi nii yaa gën a dëng mun tege loolu la ñuy wax Babacar bàyyi ñu Idriss Seck mi ngi nekk foofu gars yi di ko lébloo keroog TFM moom xamul ne bu gaayam koy kaañoo fi mu toll nii gars yi di ko dugal ay pièces muy def ay di wax ci Senghor rek di wax ci Ablaye ma ne ko ci non Idriss Seck train bi raw na ko gara Babacar Idriss Seck train bi dem na bàyyi ko yëgul li xew mais dama lay comprendre nañ dem rek yow mii sax suba ngay ngay comprendre nañ bàyyi bala vingt cinq si ngay soog a xam ne lépp dëgg la you don't know what's going on man nigga
waaw waaye li nga wax moo moo am li nga wax ah, sama jarwaat li nga wax moo am maa ngi nuyu jibi si di ko ziar di leen wax ni rek eh, li nga wax kenn mënu see teg dara ci ni ma ko xalaate ndax am eh, maanaam waa Saalum ñoo wax loolu waaye waa Kajoor tam bu fekkente ni bëgg nga ko lifin nga daal di dem jox ko paas finalement ku bëgg a dimbali juróom-ñeenti juróom-ñeenti ñu ndóol ba ba ba watul fukkil leen te te loolu ngeen leen tàmmal ku wax rek depuis ci capitaine Touré ku lifin rek ñu cotiser la yooyu yëpp ay facilité la yoo xam ni baaxul neexu la wax nag waaye loolu yëpp ak yombal la rek waaw tëdd muy dox rek lay mujjee tëdd muy dox rek sénégalais fii sacrifié wuñu seen deret wala seen temps wala seeni xalaat wala seen itte ci mbir duñu kiilu xam nga àdduna doo nax sa bopp àdduna kenn du nax boppam ñun ñii li ñu dal maanaam Ablaye Wade gagné na fi élection te kenn cotisé wul dara di nit bu bëggee soppi mbiram faaw mu jóg soppi ko nit dégg naa sëñ Babacar si benn waaye dafa ñëw ni ko damaa yenu yan bu diis bëgg nga ñaaral ma ci mu teggi ko mu ne ko du bu- yaa ko yan sa bopp mu ne ko waaw mu ne ko yenneeku ko yenneeku ko loolu wax na dëgg nit ki ba facilité baaxul fi mu ne waa waa Saaluma ngi naan nañ leen jox paas ñu dem waa Kajoor waa Bawol léegi ñu laaj paas waa waa waa waa waa Bundu laaj paas waa Fuuta laaj paas jëlale naa waa Ndakaaru Cap Vert ak feneen jëndeer léegi ñëpp laaj paas finalement kon kan mooy xeex xeex bi sëng lëf lay jar ca ngaay sëng lëf lay jar ca ngaay de waaw dafa am loo xam li dafa am ak njëgam loo am ak njëgam jëlal loo amul ak njëgam bàyyil loo amul njëgam jëlal loo amul ak njëgam bàyyil boo amee liberté ak njëgam jëndal boo amul njëgug liberté bàyyil continuer nekk jaam rek noonu la mbir mi toll nañ leen continuer moom suñu bopp wala ñu continuer nekk jaam rek ni mu- niñ koy nekkee mooy lan mooy jéem a def sacrifice jéem a wote ji rek jéem a def sacrifice jéem a wote rek jéem a def sacrifice jéem a wote rek jële fi gaa ñi ak nuñ leen fi jëlee waaye aw ma paas ak dëkk bi dafa naqareeg baykat yi amuñu aw jiw amuñu dara ci seen poos ak foogu ma ne loolu yëpp yóbbante galgal ubul làmb de yóbbante galgal ubul làmb de li nga wax day vraiment man delloo si na ma daal gisee wu ma ko woon noonu waaye bi nga waxee daal parce que nit da ngay jàng ci dara di doo demee sama xel rek man de bu bu dëgg jóge fu dëgg jibe sama borom de dimbale ma ci loolu man daal ku ma wax dëgg ak lu metti metti bu dee dëgg bu ma seetaatee sama xel rex damay daal di dellu si de man de yàlla dimbal na ma ci loolu yàlla dimbal na ma ci loolu yenn saa yi ma jàpp dara defe ne noonu la benn waaye wax ma ne ah jar naa bàyyi xel de daal di dellu si waat àdduna loolu da cee baax ay jërëjëf waaw góor jërëjëf
asalaamaaleykum am na lu ma waroon a waxtaane sànq ma jot ab coup de fil mais entre temps sama jëwriñ grand Thiam tàbbi ci jataay bi mbooloo mi man la maxtaar man la maxtaar jaabaartu maa leen di nuyu bu baax di leen di ziar sama ziar tey si Maodo Mandela Mboup laa koy jaarale Maodo Bambaay Maodo Maodoy Bamba maam Moussa Ka moo si def way wu am solo grand Thiam mën na leen ko nettali ndax moom daa jàng lii di caada maanaam jaar-jaar yi mag ña ak ña bindoon ay tiiri ci làmmiñu wolof ndax maam Moussa Ka dane woon dogan ko nag demam gi kon wolof nasaraanu waaye kon ñi mel ne grand Thiam danoo néew a néew a néew a néew a néew danoo rafle ci réew ma ab sénégalais boo dee soose danga war a dégg soose bu leer naññ naññ naññ naññ boo dee séeréer nga dégg séeréer ba géeju ci boo dee bambara nga dégg bambara ba géeju ci xaasonke manjaago loo mënti doon da nga ko war a dégg ba géeju ci xam ko xam sa bopp bu baax a baax gaay yi maa ngi leen di wax toujours lii may wax nii le patriotisme c'est-à-dire la fierté moom mooy ndëgër laayam il faut que chaque individu individuellement soit fier de lui-même maanaam gëm sa bopp mais gëm sa bopp mënuloo koo def lu lu may dangaa jëkk a xam sa bopp Youssou Ndour sa waxoon na ko Youssou Ndour bu muy Youssou Ndour dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ca way ba waxoon na ko mooy bëgg sa bopp mooy gëm sa bopp mooy bëgg sa dereetoo kaay ma xamal la waaye Youssou Ndour côté yeete ba sunu boroom du maye lépp sunu boroom moom côté animation la ko may mais côté yeete ba ndaanaa ne dëgg ñoo doon laay mbuub coon sekk bàyyi waali morjoor sekk ak ki wayoon baaliyaa oo baaliyaa Bakar Endo Bakar Endo maa ngi lay nuyu Bakar Endo yow fan nga dëkkee Bakar Endo nit ku man ku am solo ci man nga ku am solo lool lool lool lool lool lool ci man nga wër na yàlla ndax xorom si nekk si yow gars yi xorom dafa am solo xam nga lu tax man mu ñàkk xorom mii man toujours damay dem ca sunu baay Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mu jàngal no communication grand Thiam nag dina faral di wax naan am na yenn façon communication yoo xamee ne boroom gëti xol yi ñoo koy dégg grand Thiam sa baat boobu ngay wax boroom gëti xol da nga ko war a faram fàcceel ñu bari de am na ñoo xamante ne la ngay wax dégguñu ko te jibisi maa ngi lay nuyu di la ziyaare dafa am lu am solo loo wax nga ni ñu bari ci Sénégal ku fi ñëw ñu ne du waaja ku ñëw ñu ne ñu du waaja du waaja ba waaja faf romb leen moo ne li ngeen di wax ak li may wax benn la grand nuy li ngeen di wax ak li may wax benn la mais bu dee nag Pastef ci boppam man ah bu dee Pastef ñu bari ci yéen man li may liggéeyal Pastef man li may liggéeyal Pastef sur le plan intellectuel et culturel ñu bari ci yéen defuñu genn wàll gi defuñu asakay li may defal Pastef man maa ko dul feeñal mais dina feeñi ca kanama kanama kanama kanam maa leen di bégee maa leen di ziyaare Bakar Endo eh Bakar Endo mais sa équation bi nga indi woon démb sa équation boobu neexut a neexut a toj de neexut a faram fàcce ñaari nit jenn jëmm maa leen di bégee maa leen di bégee incha allah comme yàlla sunu borom def na ni pënd pënd ba wuri na léegi dinaa mën a ñëw ci suñu kuréel gii di waxtaan ndax fii ak ay fan yu néew incha allah lu ma waxati nit ñi dañ ma mën a teewlu ndax fu mu toll nii danoo weesu fanu nekkoon J'ai dit avant-hier aux étudiants de l'université Hassan Sek qui sont en section tourisme que le leader charismatique du PASTEF, je vous nommais Ousmane Sonko, di jàmbaar am yéene indi benn politique ci Sénégal ngir suqali réew mi jaare ko ci li ñuy wax patriotisme économique ak préférence nationale gars yi maa ngi leen di wax di leen ko waxaat ñu bari ci yéen liiru leen li Ousmane Sonko bind te da ngeen ko war a liir ba xam ko di ko jàngale di ko jàngale ci àddina bi gars yi mais Sénégalais yi du ñu liir Sénégal ngay gis ku dem ba am doctorat nga laaj ko ñaata livre nga liir du la wax sax ne liir na lu mat juróomi livre aventure ambiguë liiru ko ba jeexal ko nation nègre et culture bu suñu baay Cheikh Anta mi ngeen di damoo liiru leen ko faram-fàccewu leen ko La dernière fois, l'autre me disait, nous, nous n'avons pas besoin de lire ou d'étudier la vision de Sonko, mais c'est l'homme Sonko que nous avons lu. Mais ça, c'est de l'idolâtrie. Lolo, loolu ma riirandoo la gars yi topp ci affaire bi te yéen ñi nekk ci diaspora bi ak expérience bi ngeen am ah genre yi wax yooya man pour man gàcce la ci man gàcce la ci man parce que yéen da ngeen war a jàppale Ousmane Sonko gën koo dooleel mbir mi du affaire du xaalis rek xaalis am na solo lool te grand Thiam wax na ko xaalis bi bu fekkente ne bu dajaloo Baara Ndiaye génn ca kaso ba ñu koy ngénteel capitaine bu jomba ñaaw ba am ay problème dem làqu Tuuba Mbàkke gars yi jël alal ju bari jox ko ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais maam Cheikh Ibrahima Fall dafa waxoon ne ah, kuy root di tuur bala ngay feesal te ñun sax problème bi ñuy am mooy bala ñuy feesal day jafe de ndax am mbooloo ñooy tuur gars yi am mbooloo ñooy tuur am mbooloo ñooy tuur man moom bu dee la paix en Casamance depuis 2016 laa ci tàmbali di ci dox ànd ko ak kankurang bi ak Balla Gaye ak Sa Thiès ànd ko ak Khalifa Dramé boroom koom-koom travel gars yi man maa leen wax le développement du Sénégal passera inéluctablement par la paix en Casamance tant que gars yi fexe wunu jàmmi Casamance noonu ko Basiru Joomaay Fay junje keroog ah ñu fullaal ko bu nu ko fullaalul Sénégal du mës a développé parce que le développement endogène booba nuy wax eh, saa waay balaa nga ba- njariñ loo fekke jàmm nag ah jàmm mooy mooy point ba développement di tàmbalee grand Thiam man de ku la naw laa lool sax ndax culture ak làmmiñ bii di alof ni nga ko fullaal ko faydaal ko ndax gis nga le patriotisme booba la conscience individuelle bi nekk ci kenn ku nekk ci yéena ce sera la somme des consciences individuelles qui vont donner la conscience collective te conscience collective booba moom muy moo ñuy xiirtal ci ñu am une fierté de consommer les produits sénégalais yow imaginez nga am benn projet agricole par exemple Ousmane Sonko am na benn projet agricole léegi ngay bay ceeb mais waa Sénégal ne non ñun ceeb bi duñu ko lekk parce que ceeb bi nu bëgg a lekk ñun moom mooy riz bon goût gars yi bon appétit jàpp leen ci bon goût bi rek di ko consommer bañ a consommer local consommer local nag li koy jiitu mooy bëgg sa réew ba nga xamee ne li fi nekk te nga moom ko muy endogène c'est ça qu'on appelle endogène loolu ak nu mënti melan daf lay dàqal téeméeri junni yoon la gën ci la gaa yi defal ay marketing ak ay technique de vente communication am leneen lu am solo dama ko bëgg a wax ci statistique yi dama gis ni depuis ba Grand Thiam ak Maodo Mandela ak suma jëmm ji xeebu ji duggee ci kuréel gi sax ñu fekkoon ba Maodo Mandela di wax naan ana ko fi nekk booba douze personnes kese kese kese ñoo actif woon waaye heure bii may wax ak yéen am nañu dix-huit mais gars yi quand même dix-huit bi néew na lool ci cent trente-cinq yi composé affaire bi Modibo loolu maa ngi koy wax di ko wax di ko wax di ko wax di la ko fàttaliku quoi cent trente-cinq yi dix-huit kese ñooy faral di wax fii wala treize wala quinze donc bon loola war ngeen koo càmbar pour xam lan moo tax waa allo Dakar ñu baree baree bare dañu ne nëmm rek gars yi xam ngeen benn jën bu tudd nëmm bu neex a napp Bakar Endo non Bakar Endo su ma xamoon fi nga nekk si àddina bi ah saa bu ma ko sama jot mayee wala ñu ma xam kañ ngay nekk bawal wóor na sunu borom dinaa la seet si wóor na sunu borom caaxaanuma dinaa la seet si nit ku am solo nga waaw mais nag fi nga far man moom faruma lu dul ci ah liy développé Sénégal faraluma lu dul ki nga xamee ni kii xool naa ko xool ni muy doxalee xool mbooloo yi ko topp xool ni ni ni ñuy ànd ak moom ma analyser lépp waaw dama koy analyser gars yi gars yi jànguñu analyse seulement bon pour di def populisme waaw mbir mi du affaire populisme tamit populisme bi baax na torop dans la conquête du pouvoir mais dafa am lu koy accompagner waaw dafa am lu koy accompagner nag bu ñu demee nag ba loola ñu bëgg ko implémenter parce que une idéologie a besoin d'un terrain d'application loolu sax moo tax ñoom Ousmane Sonko ak ñoom Diomaye ak ñoom Amadou Ba ñi ba ñu nekkee ENA ñu fa doon jàng loolu ah loola lañ doon jàng administration hum, ak les sciences appliquées domaine fànn yooyu la nit ñi di jàng pour yéen seen xam-xam yi ngeen di waxtaane ak jikko yu baax yi ngeen di waxtaane bay waxtaane jub mais alxuraan sax jub la dikte te léegi kooku bu jubee lool te askan wa muy jiite ñoom jub taxu leen a jub gars yi ñu baree baree baree baree bare jubuñu parce que man ci suñu jataay bii yàgg naa fi digg ay nit ñuy laajte ay njublang bay laajte ku bëgg a dugg ku bëgg a bëtt frontière ba frontière ba gars yi wax leen ma ci ay ay renseignement gars yi loolu du jub loolu du jub jub ak a jafe moo tax arxuraan arxuraan tey jii ku mu neexoon doo jàng téere bi yépp boo demee ba ci ihdina siratal mustaqim rek ah fexe koo dund bu fekkente ne yow mi taalibe cheikh dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ngay wasifa ah boo demee ba ca fa ñuy waxee naasiril xaq bil xaq fexeel ba mbooloo yooyu topp ci ginnaaw Ousmane Sonko bu ñu ko amee rek ah Sénégal développé siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ak Nasiril Haq bil Haq ñooñu topp ca ginnaaw Ousmane Sonko léegi Sénégal développé quoi am un développement endogène boo xamante ne nii day da ngeen di gis fruit yi léegi léegi commencé ci meññat mi di ci lekk man maa leen ko wax te loola lu ci bari ca cosaan di la ñu koy jëlee ndax am na loo xamee ni gars yi ndono dafa foor ndono ko foor lii may wax ku ko xamul laaj leen ko. mag ñoo xamee ni ay mag ñu baax ñu éclairé lañu te amuñu naafiq gu nekk ci ñoom
waaw salaamaaleykum moom la jawar la Dakar maa ngi leen di di leen ziar hey ki gàlla bari ari grand boy Moscou ngi lay ziar man bari info di la bëgge yaay yaay kii foofu El Hadj El Hadj Niass de nga ne ko léegi ba APR nga dem parce que bari nag problème bi mooy APR ñoom pare nañ ci nag xam nga problème bi mooy ñoom jeexal ñoom pare nañ moom c'est fini El Hadj El Hadj su nekk nii moom xam na ne saa yi pare na di nga ziar di la ziar yow bari ñi xam ñaata lañ leen jox ah jox nañ leen quarante mille xaw ma quarante cinq mille milliards lañ leen jox de ci douze ans ñu ñuy defal lii. quarante cinq mille milliards bari yow suñ la ko joxee loo ñu defal loolu laa lay laaj di la ziar te xam naa ne li ñuy defal li ñuy defal Macky Sall duñu defaluñu sax kii bi un dixième bi di la ziar di ziar grand doy grand doy ñu ngi lay ziar bu wér a wér a wér a wér di la bëggee ak sa seex karabalaa wàccoo karabalaa jëwati na de commencé sànni ay ay misilam di leen ziar waaye di leen bëggee grand Thiam grand Thiam ñu ngi lay ziar di la bëggee di kontaan ci contribution yi am na solo ah grand ak café gi café gi grand grand temps yi moom café gi moom xam naa ne namm nga ko quoi café suba teel gi di la ziar i kàlla ah jabartu ñu ngi lay ziar man yaa ngi nuyu di la ziar di ziar di nuyu ah, Maodo Mandela ñu ngi lay nuyu di la ziar yow sa seex bay Daouda bay Daouda bay Daouda Hmm. les deux patriotes ñu ngi leen di ziar eh kii sama mbokk mbool la de ah Bakar Endo sama mbokkum dool maa ngi lay ziare di la bëggee yaa ngi am jàmm Bakar Endo da nga koy déglu di ree rek. waa kar keroog mu ne postel ji idi idi ak ak apes dootu ko defati idi idi tekkal la mën quoi mais wax mu dem ci ba xam na ne foofu duxut teere bi duxut bu ne xaaral ma dem ci télé bi jéem a jéem a bab gaay di la ziar di ziare Maodo le patriote di la ziar ak jibi jibi di tudd ak ñu ngi lay ziar men di la bëggee liggéey bi rafet na daaneel yëkkati nañ ba ci kaw bàyyi mu àgg suuf rek a ci des incha allah dimanche mu mat sëkk eh grand bay bay bay bay grand bay li leen Macky Sall def neexuma de mu ne du ngeen wote grand bay nag yow nag grand bay nag ah grand bay Macky Sall mii nag moom fu mu teg lii rek ah man man bi ma gisee ñu ne diaspora bi rek trois cent et quelques mille damaa ne waaw trois cent et quelques mille diaspora bi xanaa xanaa France rek ëpp na trois cent et quelques mille xanaa non mais yi dañoo yem de ay baax na xam na ne diaspora bi dañ fi am picc dara ñu ne xaaral ñu noom ñu ñu ñu ñu réduire nombre bi baax na dem génn ñoom grand mbay ah, ne leen doo leen wote quoi di la ziar grand nga bëggee di ziare jaam yàlla jaam maa ngi ñëw ci yow wala jaam lu may pëlal jaam nee naa la nee naa la xoolal ñaari fuul yi bokk nu nun suñu fuul xoolal suñu fuul nag diñ koy giseen gaay nee naa la suñu fuul gaay yi dañuy génn koñ bu ne daw ñëwal seen bopp ñun fuulu fuulu fuulu gaay ñun fuulu tànk la ñam xam fuulu tànk mooy maanaam nit ñi seeni tànk la ñuy jege fa ñuy jógee daw ñëw yéen nag fuulu njaga njaay ngeen am dañ leen dugal ci kaar li la koy wan rek mooy t-shirt yi t-shirt yi ñu leen di jox ak casquette yeeg tis yi ñaw ak nga xam ne ñii dañ leen a préparé jox leen ay kii yéegal leen ñun nag nun ful bu nga xamante ni xoolal dañ naan Ousmane gi ñëw Jomaay gi ñëw ba nga toll ca buntu dëkk ba gars yi daw jëli ko billaahi ànd ak moom yow xam yow xam nga ne roy du nduroog fiir yéen mun amu leen dara yéen yéen a ngi gàddu njëg njaay te mun leen a bëri nit yee xoolal ñun li ñuy li li xoolal li Ousmane dong di drain jomaay ak la muy drain ñoom ñaar bokkunu fuñ nekk ku ci nekk ak la ngay drain ah non non non non yow yow yow yow sama bor nga toogaat nga xoolaat yéen Amadou Ba ngeen am gàddul ko ay ay jaga jaay ah eh, moo taxoon kay bi campagne bi tàmbale ngeen naan waaw génne ko ñu fonds yi fonds de campagne fonds de campagne booy lan ba xaalis bi ñuy jox gars yi pour ñu yëg ci oto yi xam ngeen ne su ngeen joxewul gars yi duñu yëg ci oto yi moo tax ngeen doon jooy daal génne leen xaalis bi ñun de jooy nu génne leen xaalis bi ñun ñun gars yi génne seen xaalis nga xam ne billaahi xoolal roy roy ak gis nga li ñuy wax naan pàkku di mënta bokk ak original eh copie photocopie mënta bokk ak original yéen ay photocopie ngeen yor yéen gars yi xëy na ngeen ñu jox leen ne leen daw leen ñëw topp leen yéeg leen ci oto yi su- suñ demee ñu jox leen non jaam jaam jaam noppalu leen quoi noppalu leen vous êtes à terre ah xoolal li ma doon wax xam nga démb ñi ngi waxtaan rek di wax waxu deux ngeen di ñuy wax deuxième tour xoolal Abdoul Mbaye Abdoul Mbaye génnaat na ci deuxième nee na moom itam ma ngay wax waxu deuxième tour yéen ñëpp da ngeen a bëgg a def ci bopp Sénégalais yi day day deuxième tour day am loolu ngeen di liggéey fi nekk nii toog leen noppalu les anciens là les vieux là hmm? ne ñoom dégg naa ñoom ñëpp Amadou Ba leen mag Amadou Amadou tria gum tria tria gi rek li koy wane mooy bijaaw yi muy yi muy yi muy ñuulal. maa ngi muy ñuulal bi jaaw di nëbb rek soo ko joxee leneen mu su dimee leneen ñuulal lëm dëmal ko ah di la ziar di yaa son haja son haja di la bége di la ziar di kontaan di lay dégg son haja xam naa instant bi moom nelaw na di ko ziar bu wér di ziare ah, séeréero séeréero ñu ngi lay ziar men séeréer ñu ngi lay ziar grand boy séeréer wax nga dëgg de grand boy séeréer kii ak vidéo bii dañoo war a bàyyi yii am na ñoo xamante ne bii gawnaan nga soo koy wax c'est pas le moment ay jéem a gëmloo nit ñi ne élection doo am ak yooyu non ñun ñu ngi drain bañu ñun dañuy drain faut qu'ils arrêtent ça quoi waaw parfois il faut ñuy arrêter yenn yi parce que dafay ëpp quoi yaa ngi dégg ñun ñaa ngi ñun ñi ngi ñun ñi ngi drain ñun dañuy drain ñun te élection di am dimanche nga naan ay élection du am ak Macky Sall day démissionné da nga leen nit ñi jàmm dañuy élection de dimanche na démissionné ñun dañuy élection dimanche on s'en fout Ah, du ne ngay préparé nañ seen i kii kay wax ji wax ji mooy ñun kay nañ toog ci ci bureau de vote yi rek wax ji jeex préserver yi moom moom moom fu fu fu ne foog naa ne ñun moom am nañ fay nit ñi fa nekk mën a surveiller mën a xeex ñaar yëpp lan boole di ziar di ziare ñëpp ah di ziar Bab si Diogo ah hey Bab sa waa ji bàyyi sa waa ji da nga ko téye sa waa ji daa daa commencé naax de Bab doo jël parti bi da nga da nga da nga da nga pousse waa ji wu toogee de ne ko ne ko ne ko ne ko grand kaay rek kaay kaay kaay ma tegal la seize seize seize kii nga toog seize billions yooyu nga tëdd yor sa kurus di ma ñaanal ak xoolal waay Babs di la ziar oh, di ziarale ñoom Papis Papis politicien ay ñoom grand Malick ay ñoom grand Omar Mbaye grand yooyu ay grand ñoom jàmm nu mu tudd sax waaye yow ay ñoom grand Cisco grand Cisco moom gisatañ ko de daa mel ni ku réeraat sama député ay ñoom ah, kanati sax ay grand laay ñàkk caaxaan grand milk sow di leen ziar sama gars yi soxna Soda ziar la ziarale soxna yëpp ñoom soxna Aida ak ñoom soxna Fatima les lion et les tigresses ñu ngi leen di ziar bu wér ara ma ñëw ci beneen audio nag parce que dafa am lu ma bëggoon a leeral fii ko waaw salaamaaleykum waa rajo allo Dakar point com na ngeen def waa Fore maa ngi lay nuyu Fore dama ree ba bëgg a dee bi ma gisee doo xam naa ne waa kër Macky Sall yi vraiment ku leen gën a ñàkk xam-xam amul. defe nañ ne audio yi mooy tax ñoom xanaa xamuñu ne ils jouent même contre eux te ces gens-là sont non da- daanu nañu daanu nañu Macky leen gën Macky sax a leen tane ndax moom xam na ne moom fi mu nekk nii jeexal na jeexal na day wax xoola paa bu ñàkk fayda boobu toog di yooxu bugguma Macky Sall dem que qu'est-ce qu'il va dire à ses petits enfants ay sëtam yu toog ñu war a changer seen nekkin ci àddina ngay toxaw di yooxu naan bugguma Macky Sall ñàkk chum non mais Sénégal am na ñoo xam ne franchement c'est c'est c'est c'est c'est c'est de la racaille nee ñu dañuy jéem a boole waa Pastef ak waa Touba da nangam day yow yow dañu dañu noppal seen bopp c'est le monde là a changé seen système yooyu ñu bëgg nekk nañ ci nekk ñii ñoo leen ëpp yar ñoo leen gën a ëpp diine ñoo leen gën a xam nu ñuy diile ak yeneen yi lu ne def nañ ko pour ne Bassirou Diomaye Faye gëmul sëriñ ak gëmul ne mais bu ko neexee bañ ko gëm c'est un musulman après tout est-ce qu'il est là pour de- de- pour, pour être un imam ou bien un un, un oustaz vraiment Sénégal dañu ñàkk classe daal ñàkk classe naan ay ex Pastef nee na lii ak nee na laa waaye yow nii sans merde maa ngi leen di nuyu waa forêt maa ngi nii ba boobu rek laa dégloogum di parce que man sama kii yëpp dama ko mujj effacé dafa fees a fees a fees Aliou Karamulaay la wàccoo la xaw ma yow rajo yi doo dugal rek linku rajo bi comme ça ñu di ci dem mais boo dugalee émission wu rajo bi yëpp ça prend trop de place merci beaucoup Aliou waa Fore man li ma la bëgg laaj aussi mooy Sénégal kii ñaata millions d'habitants lañu ah wala nga xam ne ñii boog dafa am leneen lu to- lu ànd ci yëf yi day na waar de macha allah macha allah macha allah.
asalaamaaleykum sama gars ñi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax waay di leen seet ci koor gi di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di nuyu ñëpp ah, di nuyu tags di nuyu mbokk yi dugg yëpp yëpp yëpp papis maa ngi lay ziar di nuyu Forie Mbos di ko ziar bu baax Modi maa ngi lay ziar di nuyu Soda di nuyu ñëpp jaam yàlla maa ngi lay ziar bu baax di la seet ah, bëggoon wax ne agsi nañu ci bu am, campagne bi suba buñ ci génnee rek dañuy noppalu samedi dem dem voté ji yaakaar ci ni ma toppee affaire yi ak waxtaan yi nga xam ne doon naa ko def àgg nañu foo xam ne nii la ma waxoon ba Macky Sall ne dañuy dàq élection yi gàcce gi ma amoon mbégte gu toll noonu double ko laa am moom mooy Sénégal jógaat na dans le monde Sénégal taxawaat na on a montré qui est le Sénégalais au monde entier les autres doivent, doivent nous féliciter de l'Europe à l'Amérique passant par les pays africains et les pays de l'Asie war nañu remercier féliciter le peuple sénégalais dans son combat pour moom boppam dans son dans un combat de changement le changement est là c'est pas pour dimanche mais léegi wane nañ ko quelle que soit l'issue jomaay bu jëlee pouvoir bi bu toogoon rek biir palais di ndekki di añ di reer rek c'est une révolution parce que il y a un changement générationnel et que on a formé fermé la porte de ceux qui croient que ne bu dul ñoom Sénégal du du dem fenn ñoom rek ñoo mën a nekk président c'est un appel du pied le fait que jomaay jiite li nga xam ne moom la Sénégalais yi yaakaar moom mooy le changement moi je suis très content chaque fois que je regarde Diomaye, je pense à tous ces gens-là qui ont quitté leur village, qui ont quitté leur hameau pour dem jàng def fa primaire, dem ci dëkk yu mag yi def dem defi fa am seen collège, soog a dem université génn ñooñu nga xam ne dañoo xam Sénégal dëgg dëgg dëgg. Donc moi je pense à à ces gens-là. Je suis très ravi. Vote bi ñëwagul, mais je vois Diomaye prendre le pouvoir. J'imagine su ma tëddee qu'est-ce que les gens vont dire de, du Sénégal? Qu'est-ce que les autres pays africains vont dire de nous? Que c'est un peuple boo xam ne nii dafa gëm boppam ak foo mën a jóge ak lu mën a doon sa background les Sénégalais li ñu jiital mooy Sénégal teg fa koo xam ne nii dina mën a assurer cette révolution qui est véritablement une révolution qui est en fait un changement générationnel et radical boo xam ne nii teg nañ fa Sénégal nous devons applaudir nous devons applaudir nous devons montrer à ces gens-là que ne ceux qui croyaient que ne bala ngaa voter bala ngaa am nguur gi il faut nga jaar kër sëriñ diw kër sëriñ diw kër sëriñ diw ñun loolu loolu yóbbootuñu parce que def nañu loolu jaar nañ fa gisuñu ci dara xale yaa ngi dee ci géej gi te pourtant ñooñu ko waxoon ba ñuy commencé dañuy dañuy dañuy dem ci kër sëriñ si di leen def ay di leen di leen tàggoog di def lu nekk mais ñooñu at the end lan la ñu indil Sénégal gu ndóol Sénégal gu metti Sénégal kuma am ndey kuma amul ndey guys j'espère que ne comme na ma ko waxoon ne dugalaat naa sama carte électeur génnewaat naa ko pour une simple raison mooy Diomaye Faye yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla taxaw yal na ko yàlla yàlla aar je voterai je vais dire tout de suite je voterai Diomaye incha allah et je demande aux gens aussi ñi nga xam ne dañuy wax ñu génne seeni carte électeur ak seen carte d'identité ñu def lu tuuti loolu nga xam moom lañ leen di laaj te waxtu rek lay mët au niveau de la diaspora nga participer au changement de ce pays parce que seetaan ci sat la bokk seetaan ci sat la bokk donc moi je suis très content que man bu yemoon fii sax neex na bu yemoon fii sax neex na nous irons à des à une élection boo xam ne nii yaakaar bi ëpp mi ngi tegu ci doomu réew mi nga xam ne moom la ñuy wax jomaay jomaay jomaay fay teguwul feneen ku ci bëgg la bokk c'est ton problème l'histoire c'est un train le train est là c'est un seul train qui passe chaque jour si tu ne prends pas ce train tu vas dormir ci biti ngay nelawee ak yooyu yeeg ngelaw leeg ak lu mu mënti doon le train de l'histoire est en train de sonner que ne dans quelques minutes dina départ dina tëj ay buntam ceux qui croient que ni am nañu leneen beneen train buy ñëw ci seen ginnaaw wala ñuy def ay calcul ils vont rater le train de l'histoire guys je vous demande please xool leen seeni carte électeur je vous demande please de ne pas écouter parce que ci deux jours yi spéculation yu bëri dina am ci réew mi wax yu nekk jiñaan ren fenante ak yooyu yëpp dina fa am lii du loo xam ne nii dañuy jomaay day jël pouvoir bi rek lépp soppeeku lépp soppeeku mais c'est un pas vers une indépendance totale du Sénégal c'est une révolution participer à cette révolution qui est le changement radical du Sénégal jërë ngeen jëf yàlla nañu yàlla may ñu yendoo jàmm